daaw ko feetu bés bii moo taxoon man ñu tëj ma kaso bés bii moo taxoon ñu tëj ma kaso te ñi ciy coow yëpp mosuñ cee arrêté kenn ba Ablaye Wade dikkee waa kawlax yëpp dañoo meroon Senghor ngir tëj bi mu tëjoon doomu yaay Sira Mbodj di Waal Jojo Ndiaye moom lañ tuddee lycée bi Saalum yëpp bàyyi Senghor dem ci Ablaye Wade Senghor daal di wax Babacar Ba ne ko yaa ngoog banque baa ngoog yaa yore finance yaa yore économique ne saalum yëpp delsi ci lañ tàmbalee ji joxe ay oto Scania ay Fiat ay Berlier ñëpp delluwaat bàyyi Ablaye Wade ñëwaat ci Senghor man ñu defloo ma benn conférence ki ko jiite woon mooy Ousmane ngi sali damay wax lu wóor tey damay tudd mhm. boo jógee service de miine balaa nga yegg cinéma ABC fi ñu def porte solaire fi mu jàddee kër googu kër gi ci tegu fa la njëkk a def congrès bu PDS jàmbaar la woon moom Ousmane Diaw Nguissali bañkat la woon ku dëggu la woon ñëpp beddi nañu Abdoulaye Wade ba mu des moom yal na ko yàlla fay yii ñuy def bu kii faloo nga dem fale jëfu naa fekk la jëfu naa fekk la politique booy dee tam na nga nekk fi nga nekkoon rek ma def conférence boobu keroog laa dal dal Senghor ci bés bi la woon bésu tam xarit ma dal Senghor ma ne dafa dikk di yàq nowel ñu jox xale yi juróom-ñett fan juddu Isa jullit bi ñu leen may bési gàmmu te téeméer boo jël quatre vingt yi ay jullit lañu kon ana suñu lislaam nowel ñu jox xale yi juróom-ñett fan ñuy bànneexu bu gàmmu Seydina Muhammad dikkee xayu xalqillaahi kenn du feetu bu Pâques dikkee ñu may leen quinze jours def quinzième nationale de la jeunesse xale yi di fo di caay-caay te bu Tamxarit dikkee duñ ko feetu fête des pères fête des mères Toussaint Ascension Pentecôte ki Pentecôte ba fête des morts ñun kasu rajab duñ ko feetu layatul qadr duñ ko feetu nisu Chaabaan duñ ko feetu ma ne Senghor dafa ñëw ngir yàq diina réew mi te waxoon na Paul VI ne mënumaa def Sénégal ñu ay catholique mais mën naa leen def jullit yu réere seen diina Paul VI la ko waxoon ba Paul VI demee ci la Jean Paul premier ñëw après Jean Paul II ñëw après Benoît XVI ñëw après François ñëw argentin bi li may wax dara réeruma ci ba ma waxee loolu fii moo gën a neex foofu ba conférence bi jeexee maa ngi sol sama yooyu téye na téye moom asamaan si buy daanu maa koy téye yëguma bi oto police daa di gaar nattu yàlla moo rey kere ki ko doon dawal sama wóllëre bàyyi la te mënu ci dara moo tax armée dafa métti alaaji góor gi wage yàlla nañ ko fekk aljana moo doon dawal oto bi oto bi boo ci duggee doo fay <laughs> maa ngi ne nongu ci biir oto bi waaw <laughs> alkaati yaa ngi ma wër yooyu ay dal sengoor yooyu da ngaa ref moo ñëw ci police bu kaw Kaolack ndeysaan te ñoom alaaji olu sàmb bu garabu lawbe moo njëkk a def jàkka foofu yàlla nañ ko fekk aljana ñoom njawar alkaati loon mi ngi dëkk weti làmb mànga mànga juuf la de xaren manga juuf yàlla nañ yàlla fayal kookale ñoom góor gi duut euh, duut sëy kero ci la nañ ko génn ci police bi kero dafa yekkal commissaire bi lu mel ni xeme kero lañ ko jël ñu yóbbu ko gouvernance moom nekkatu ci police bi mi ngi nekk garabu law bi alkaati yi sama wóllëre baay yam ñoom alaaji jibi kama bu gànjaay yàlla nañ ko fekkee aljana ñëpp génn Pape wax nga lu ëpp de Pape Senghor kenn du ko laal mu ne te muy laal Seydina Muhammad bu laalee yonante bi ma laal ko waaw ci lañ soog a yónnee Cheikh Lay moo nekkoon chef protocole bu Senghor sama wóllëre baa la ñu naan ko Cheikh naa Lay ba mu moom ak Senghor ñoo doon ànd après Abdou Diouf après Bruno Diatta ñoo moo fa nekk léegi ñu ne ma rab kaso baaxul de <laughs> lu raglu la lu metti la boo toogee doo taxaw boo taxawee doo toog sëñ bi comme wóolu dafa xamante woon na Senghor boobu ñu ngi Dakar mu ne comme doomi góor la nañ ko bàyyi waaye wax na lu ëpp de Senghor kenn du ko wax lii de ñoom catholique yëpp ñu daay dajaloo ñoom Paul Boulon ñoom André Guillabert tubaab la woon catholique la woon ñoom Euh, Émile Badiane bu Casamance catholique yi nekkoon ci gouvernement bi yëpp di gësam Senghor pour nañ ma tëj ci bés bi wallahi tey la gën a neex Cheikh lay ñëw Senghor ne na waxal sa doom buy wax waareem bu ma tuddati euh, mu ne ko papa dégg nga mu ah, naa ko mu ne dama ko def mu ne ko déedéet ah mu ne déedéet Cheikh mi ngi nii mu ne ko déedéet Cheikh lay dellu ñu bàyyi mamal ma ma daal di ñëw semaine bi ci tegu weti police ndooroon ma defaat bu beneen conférence ma daal di ko dalaat mu tiiraan ma tepp Senghor boo demee mu ne Cheikh lay boo demee na nga ne góor gi doom bi dafa waaye di na ko yóbbu ñu faj ko sëñ mu ne mën na juruma doom bu dof <laughs> juruma doom bu dof yàlla yàlla fay ko kon ba léegi ki ma njëkk a jot dossier yi pour tam xarit nekk feet ñu ngi ko tuddee Ibou Diop Lira boo ñëwee bi aran ceema ñett guy yi bitig bi bii julli ci kaw guy yi moo nekkoon directeur école mu ñu dee CFP wala ci Kasnaar ji ñaareelu soxnaam ak sama mag ñoo doon borom moom laa jox dossier ba dossier yegg ci ku baax ki boroom xam-xam bu rëy bi koo xam ne mu am téere ak mu amul téere moo yem ci moom mooy ah xam ngeen ko bopp bi comme ordinateur la moom bu amuloon téere tamit dafay wax ku yàlla baaxal ah ah xam ngeen ko waaw ah, kay mi ngoog Ibadeer Caam euh, yàlla yàlla fay ko Ibadeer jàmbaar la Ibadeer góor dëgg la ci lañ yóbbee dossier yi di ci xeex ba tam xarit am feet waaye tam xarit kenn daw ko feetu kon bés bi bu ñu demee ba koy am feet dama ci am paar ndax man lañu ñu tëjoon ngir bés bi kon bu ñu naan suba mooy asura tey mooy asura bu tey nekk asura du ma ko def man kenn ci Sénégal lañu tëjoon kaso ngir bés bi ci ginnaaw gi ñu arrêté waat ma foofale fekk commissaire Omar Niane Mbow moo fa nekk dafa toog ñu daal di ma indi ñu dem ne ki doon coow jàpp nañ ko de mooy sama ñetteelu jàppul ñu andi ma ci bureau ba mu siggee xool mu ne ah Pape kan moo la fi andi. man ne ko ah lu yaa joxe ndigal na nañu faal mu ne ah yàlla tere yàlla tere moom sama wëllëre bàyyi la woon euh, sama papa këram la doon wàcc mooy commissaire Omar Niang bu yàlla nañ ko fekk aljana yaa rabbi kon li ma bëgg wax mooy bu leen am tiituwaay yéen xale yi fa ñu jëm Moustapha def moo koy fàttali ku ragal bokk ci ku yàkkamte bokk ci lépp danaa ko yenu bu ñu saagaa baax na bu ñu xastee baax na bu ñu ŋàññee baax na bu ñu ne dañuy rey baax na bu ñu ne dañuy tëj baax na mun nañu jël lu nekk ci man waaye wallahi baatu laa ilaha illallah bi nekk sama xol kenn mënu ko fi jële ay facebook nañu saaga ay twitter youtube ay whatsapp ay nangam lu neex doomi aadama nañ ko waaye wallahi diinay seydina muhammad bi ma dee ngeen war ma rek lay def bés lu ngeen may gunge bés wala na fekk yéen a ngi jooy waaye man maa ngi ree ci yàlla jéemu maa rax yàlla ci dara bés boobu bés bu rafet lay doon bésu siggi lay doon ci yéen ngeen ñaanal ma mujj gu rafet na ngeen ma toppatoo na ngeen ma sikaral na ngeen ma yóbbu sama dëkk bi ma tëddi foofu Cheikh Ibrahim sama ndénkaane mi ngi noonu du neex sa nopp waaye sama ndénkaane mooy loolu nit ki bu faatoo euh, faatu yi ni dafa du benn am na ñoo xam ne balaa ñuy faatu danañu wàcc yàq seen yére yëpp ñii danañu kabina yàq seen yére yëpp du ñàkk teggin dafa am ñu fi nekk dégguñu olof bu baax sama mbokk Guinée sama mbokk Mali moo tax may xaañ du ñàkk jom ci man de waaye bëgg a jottali risaala al muhammadiyya yàlla moo ne woon maa muhammadun illa rasulun qad xala min qabli rusul afa in maata maatala la yàlla bu Muhammad dee yàlla kenn ëpp ko teggin waaye ngir leeral dana am ñoo xam ne balaa ñuy dee ñu yàq seen tube ñii saw ñii kabine ñii bu ñu deeyee dañuy ngeleju ngir dañ doon wax lu bon ñii bu ñu deeyee dañuy ŋóobi ngir dañ doon lekk lu bon ñii bu ñu deeyee seen bët dafay jël ngir dañ doon seet lu araam ñi bu ñu dee seen loxo dafay ŋoo ko ngir dañ doon jël lu araam ñi bu ñu bu ñu dee seen naq dafay xóot ba nga mun cee dugal sa loxo ngir dañ doon jaalo ñii bu ñu dee seen biir day nekk kàmb ngir lu araam li ñu doon lekk ñii bu ñu dee seen tànk yi dafay rënke ngir dañ doon dox jëm fu bon moo tax boo dee say doom lañu la njëkk a jegeñ ñoom ñoo mën a sutural sa awra dëgg-dëgg kuy dikk soog a dikk bésu tey gii bàmmeel yépp malaaka yi dañ ciy dugg seet barge bi nekk sa baat gisoo journaliste yi barge yi ñuy def seen baat kenn ku nekk dañuy def barge sa baat ñaata yoon nga mus fen ñaata yoon nga musa wax dëgg ñaata yoon nga mus a njaalo ñaata yoon nga mus a séy ak sa ñaata yoon nga sàcce ñaata yoon nga saraxe ñaata yoon nga demee ca lamb ba ñaata yoon nga demee ca baal ba ñaata yoon nga demee jumaaja ñaata yoon nga yépp wa kulla insaanin alsamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yowma kitaaban yalqahu mansuuran ah ah iqra kitaabaka bi nafsika al yowma alayka yéena ko wax de xasiban at bu nekk tey bii dañuy ñëw ci bàmmeli seet sa baat bu fekkee am na ku la jéggal ñu fomp benn bàkkaar bu fekkee ña nga tooñoon jéggaluñu la ñu daal di ko daal di ko maintenir encore amoon nga téeméeri bàkkaar tooñoon nga oustaz Omar Ibrahim jéggal na la ñu fomp benn nga des sa 99 tooñoon nga Cheikh Abdoul Qadir Camara nee na comme faatu na jéggal naa ko ñu fomp beneen nga des sa 98 waaye nag ñi nga tooñoon ñëpp dee te jéggaluñu la bés bi bu dikkee ñu seetaat sa kay naa yow de amoo chance ñu delloo la ko yowmal qiyaamati boo génnee rek amatul lay iqra kitaabaka jàngal sa téere bi la ñu leer li ci nekk yëpp yaa ko def safarango kon bés bi boo ko foosee foo jëm ñaari tabaski sax baaxul waaye moo na ñaari tamxarit ñaari korite sax baaxul waaye moo na ñaari tamxarit tey mooy aliful wusul mooy la moom rek moo am alif ci kaw loolu lañu di aliful wusul waaye tomb ga rek doy na kon dégg nañ ko kon mbir maa ngi noonu la bés naka tey la yàlla jéggaloon yoon ci yàlla Adama